ma fii ay jàng ak ay. ah ay soo jàng waaw soo jàng waaw ak ay alxuraan yooyu. nga defee formation ah, kon neex na. ah naa dina gën a neex sax. waaye foofu keroog la dégg nga loolu yow. <laughs> salaamaaleykum. waaleykum ah ah na. barke naa ci kër gi de. la ilaha illallah te foofu taa bi yow. waaw waaw dégg tax ci gu nag ban si na de xanaa ba dañang mu baadoola mi tojati dëkk bi di defar cuuraay yu kenn xamul jóge bi kër ma ñang la demoon nag fan yëpp ñu ngi ñëw waaye ñëwati na indeeti na lu bees tax ba jaay déew taal ba jaay déew taal sama géwal rasta gi sagi sagi sagi sagi sagi sax sa gut gut gut gi sagi ay way loolu déew taal bi may ma ma wax la mu ne ko tax ci dafa génn fecc bu bees loolu loolu ci dafa génn fecc bu bees. loolu la taxaw wi cax. ay taxaw wi cax. ay taxaw wi cax. aywa aywa loolu baax na xanaa kontaan na ci ngeen. waaw waaw. ngi nii mooy tojati dëkk bi. Hmm, ah ba daa fa fëlati de ba da ñang moo fa fëlati boobu ay ah, xanaa lool mélange la ah, hmm. lépp a ngi ci kii boo ko defee moom tarkal la yow moom yaa ngi toog mbir mi jàmm. trois mille cinq lay jar. Ah. waaye yow client nga moom yow moom client nga moom daanaka ni parfum moom dootoo laajte lu muy jarat. client nga moom yow moom client nga. trois ah bii séeru bii moom séeru moom. waaw ana bu xees. daa ko gisul ci kër gi tey. sa cappali. ah, ah yow nag bu ma nee la bu xees war nga war ngaa comprendre. ah, ah attanta. wallaahi bëgg naa parfum sax na jama. yaa ngi toogal. waaw yow de moom de moom diine rek. diine lay dund de. rek yow moom diine rek. xam naa sama bi nga fi jaayoon fan yi. waaw dafa jeexagul. waaw waaw yow moom maman. yow sama mère nga. waaw incha allah rabbi di nga ma tax a ñëwaat fii. baax na kon yow. bi moom foo ko dóor. Ah. di nga xam ne dóor nga fa dara. déedéet kay barke bi. ah sama wujj ñoom xam na lu mel noonu. <laughs> ah wéccet de moom hmm, kon a bëgg jël ko arrière ah. xam naa dama ko delloo fa ma ko jëlee woon rek bi ma yegsee. ni ko takk ci dafa génne fecc bu bees takk ci bu bees taxaw wi cax taxaw wi cax maa nag waaw papa ji gaa yi lan moo ci waral fecc mi ngi ci boole bëgg mu jar rek doom bëgg mu jar nag képp bëgg mu jar nag wërta tax boo liggéey mu jural la merum yàlla maa ngi dégg ci mag mu baax mu naan Cheikh Abdou Lahad Mbacké dafa am benn mag mu feccoon ba àkk ko mu daa koy laaj ne ko yow lii loo ci jublu mu ne ko Mbacké ngir nga bég rek mu ne ko bis boo amee ñetti fan yi bàmmeel di xam ne mag du fa mën nga koo jaay ci ndànk akuk dal te kenn du la ci yàpp ma tegal la ci ñoo ngi gis ñu bëri ñuy fecc ak a caaxaan jubloo ci bégal nit ñi mais bu ëllëg yow mal xiyaamee du may rëy moom la leen di jural. soxna Jama Sall tey jii de wax dëgg yàlla li naan xel puso bu réer la mag dina ko for gone for ko waaye for nga ko maa ngi lay xamal de di la waatal ni lii dootoo ma ci gis incha allah dinaa dem ci garage bu dóor bële. ubbi fa place ku man jël ku mënut ba waaye fecc dootuma ci fekk incha allah